ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient versé, en avaient versé. salaamaaleykum sama gars yi j'espère que vous allez bien euh, actu du jour euh, Mame Boye Diao nee na moo ngi alerté Sénégal yëpp te ñu xam ne lu ko dal ñu xam ne moom irresponsable la ci ndaxte moo ngi jot ay menaces bu nekk euh, dañ koy waaj a faagaagal daal. Aly Ngouille Ndiaye moomee moo daal di ne samedi dina woote benn point de presse pour déclarer li nga xamante nii moom mooy candidature officiellement euh, Ousmane moom moomee tey la ñuy xam ndax dina bokk am du bokk ndaxte tey la cour suprême di joxe li nga xamante nii moom mooy verdict bi euh, waa TikTok. waa TikTok ñoo doon réclamer di nga xamante ne nii moom mooy état bi pour ñu daal di indiwaat li nga xamante ne moom mooy application boobu di TikTok état bi nee na dina ko delloo si de wante dina jël ay matuwaayam dina si jël dina teg ay conditions yoo xamante ne nii bu ko accepté mu daal di ko indiwaat euh, Aliou Sané bu Y'en a moom la procureur daal di yónnee ay alkaati ñi dem jëli ko à cause de quoi manifestation no autorisée bu mu participer woon. waa Y'en a marre mer nañ ba fut Bougane Gueye Dany daal dina ñaanal soxnaam si di moom yi euh, ne xelam dal na ci moom am na ci moom njort bu rafet te fi mu jëm dina ko gënal fi mu jógee ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana juma mubarak et bon week les internautes de SMTV jërë